mbokk yi nuyu na ma leen déglu len mama ma len yene kay yi xeye tay dañ koy tàmbaleek le quotidien yene kay mi wax ci juge Ibrahima dem mi teki ndombal tànkam lu ni mel jur wax ju bëri ci bir magistrature bi enquête yene kay niñu donte dem teki na ndombal tànkam magistrat yu bëri ñom nak liñu fas yene rek moy tok manam wëyal xex mi niki noonu source a niñu dem dana amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi fi ak aljuma ngir wax ci mbir mi waye andi leer ci boppu askan wi niki noonu l'observateur di ñu xamal ni ñenn ñi seen xam-xam màcc ci wàllum politique ñoom nak lañu ñu seetlu rek mooy kii di Ibrahima dem dafa bëgg dugg ci politique moo tax mu dem ma yéenekaay bi ni ñu moom dem sax dana jàkkaarloog taskatu xibaar yi niki suba ñu wax ci match amical bi l'équipe nationale amaloon démb diggante ak Bosnie lu nu mel bokk ci li gën a fës ci yéenekaay yu tey ji la cloche ni ñu ndam demul ndam dikkul ci boobu jongante jëmle ko ci wàccaayu coupe du monde 2018 yene kay bi di xamle ba ni diggante Sénégal ak Uzbekistan te ndam amu fa won l'observateur fësal ci xatam bu njëkk mars bloqué des lions source a nul dans tous les sens Aliou Cissé di wax ci yene kay bi ni bu ñu sukkandikoo ci match yooyee daanaka bilang bi baxna mbokk yi donté def nañu démb protestation bu rafet lu ni mel nak dalul xel yi bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi ci yok ni ndax suñu gaynde yi dinañu sori ci mondial boobee ñuy amal ca Russie Vox Populi ni ñu Aliou Cissé tànn na fukk ak juróom-ñeenti gaynde yoo xam ne nag ñoom ñoo nar a jongante su boobaa yéenekaay yu tey ji soxalu nañu tamit ci ma xale yi di luy woy fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo nag ci l'Observateur yi Aly Ngouille Ndiaye di xam xamle ni bis bu ñu jàppee ñuy def jëf ju bon jooje ñoom nag ñu leen def lu bon Le Soleil ni ñu lu ëpp junni nit la ñuy woo ngir ñu ànd xeex jëf ju ñaaw joojee niki noonu nag ñooñu sax li leen tax a jóg rek mooy aar askan wi ci agression yeeg lu ni mel niki noonu sax ci mesure yi jëwrin bi jël ngir saafara xeetu ñaawteef yooyee ñu jàpp ni dinañu taxawal lu ëpp fanweeri brigade de gendarmerie ak lu ëpp ñetti junni way takk der yi ñuy jël ci at wi ak lépp loo xam ne rek dana tax ñu am ndam ci xeex mi dinañu ko def loolee la enquête bind ci xëtam mbokk yi dañu koy rekk daal di jeexalee classe yéenekaay mi wax ci ndaje mi Aly Ngouille Ndiaye amaloon ak taskatu xibaar yi ndax bu ñu sukkandikoo ci moom jawrin bi nee na sax ñetti xale la ñu jàpp ni ñoom la ñu sàcc ba noppi faat leen jawrin bi di xamle ba tey ni ñu ngi war ña ko def te bis bu ñu leen jàppee du baax ci ñoom ku ci nekk nag la nga def rek ci la ñu lay àttee mbokk yi yéen i yaa ngoog daw na